dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien def taxaw seetlu ci wàllu njàng mi ak li nga xam ne kat muy wàllu muuraay yi nekk ay di njàmbat fi mu toll nii nee na kat nguuru Sénégal mu ngi seet nag na mu gën a yembee donte sax gis nañu ne am nañ ay jafe-jafe yu nemmeeku ci wàllu njàng mi ak tamit wàllu salle de classe ak abri provisoire waaye tamit grève yi nga xam ne kat da doon takkar naase lool loolu nag la ñu fi nekkoon di jànkoonteeloon waaye nag nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom li mu jànkonteel moom a jëm nag wàllu muuraay yi ci école yi ndaxte fan yi ñu génn kat am na élève boo xam ne dafa muur woon ñu dàq ko fële ci école catholique Sainte Bernadette loolu sax moo tax ministère bi njënk wàllu njàng mi di Moustapha Maba Guirassy génne nag ab communiqué bi nga xam ne kat dafay wax nañu daal di nangu nag yenn signes religieux ci école yi décision boobu nag dafay nekk ci kaw règlement intérieur bi nga xam ne kat moo nekk ci établissement yi li leer ba leer ma nguuru Sénégal kat bëgg-bëggam lañu rekkale xool nag na mu gën a yembee ngir am njàng moo xam ne kat dafay dal du am benn tolof tolof nguuru Sénégal nag fësal décision loolu nag yéen kab di ko Soleil moo ko bind nee na li liñ ci bëgg nag moom mooy xam nag ba garantie njàng moo xam ne kat dafay mucc ayib ndaxte texte bi kat dafa bëgg nag ñu sàmmoon ñu fonk bu baax a baax li nga xam ne kat mooy wàllu mooy wàllu croyance religieuse yi ci wàllu école yi ci yéenikaay bi ba tey Abdoulaye Fane mi président de l'union nationale des parents d'élèves yëkkati ci ay kaddu nee na kat su gouvernement bi jël décision kat ñoom war a sàmmonte ak moom yéenikaay bi l'info di bañ nag nguuru Sénégal kat mu ngi dicté li nga xam ne kat mooy loi am arrêté bi nag li bëgg moom mooy nangul li jëm nag ci wàllu signes religieux yi lu ci mel ni nag voile waaye tamit croix ak tamit perles sacrées yi ci école yi ci classe ak ci lépp lu jëm nag ci activité pédagogique yi école yi sax dinañ defal ay contrôle d'approbation loolu nag xool ndax sàmmonte nañ ak moom ñi koy def na moo nekk inspecteur contrôle de conformité loolu dañ ko def nag ngir rek fexe nag ba li nga xam ne kat le ministre bëgg mu daal di am jëm nag ci wàllu cohésion sociale ak tamit garantie liberté individuelle ak tamit collective waaye tamit respect des croyances religieuses. élection législative bu novembre 2024 Sud Quotidien di fësal ne maître Malick Sall moom tekki na loolu ma ci parti bi di APR nee loolu moom du ci dellu gënaaw mukk donte sax moom am na cofeel kii fi nekkoon di mag président Macky Sall li ko waral nag moom moo jëm ci wàllu investiture moo tax le Quotidien di bind ne. APR kat dafa jaxasoo lool fële nga xamoo ne ci diwaanu Matam ndaxte maître Malick Sall daal dinay bàyyi waaye tamit boo deful ndànk dana am ñoo xam danañ boycotté élection yi moo tax suñu naataangooy samp laaj ndax tamit APR day nar a ñàkk nag titre foncier bi nga xam ne moo nekk Matam. li leer ba leer mooy loolu kat Macky Sall war na ci def kéem tolluwaay kàttanam ngir rek saafara ko na mu gën a gaawee ñu des ba tey ci élection législative yooyu ginnaaw boo amee li ñu ruumandaat jëm ci nag irrecevabilité candidature mi nga xam ne kat moo jiite liste coalition sàmm sa kàddu ku yor kàddu gi nag ci coalition boobu di Thierno Bokk moom def na ci ab communiqué di otaskatu xibaar ka ñu ànd ak daal ak tey ci waxtu yi nga xam ne kat dañoo toll nag ay wàllu manipulation ak tamit déstabilisation adversaire politique li ne mel te moo gën a fës si yéen kaay bi di 24 heures mbirum Barthélémy Dias kat dafay fàttali que yeewi askan wi loolu nag loolu nag mu amee dina am njeexital ci yenn candidature yi bu ni bu muy fàttali nag li nga xam ne xewoon na ci novembre 2022 ak tamit bañu bañ a liste titulaire Yewwi Askan Wi ak tamit suppléant bu Benno Bokk Yaakaar yi moo am ngir rek ñi nga xam bokk ci élection yi wàllu recours yooyu moo tax nag taxaw temm nekk en situation loolu nag li quotidien moo ko bind moo tax sax ñu ànd ak Barthélemy Dias weddi ba mu set li ñu doon ruumandaat waaye tamit ko mandataire déposé mémoire am ci conseil constitutionnel ci wàllu tàggat yaram ñuy xaar nag kan moo war a wutu Aliou Cissé ci bopp équipe nationale bi balaa boobu nag kii di Pape Thiaw ak te di Pellerin ñu war nag toog ci banc équipe nationale yi loolu nag ci éliminatoire CAN bi décision boo xam ne kat xel mën na koo nangu loolu Augustin Senghor moo ko wax ci yéen kaay bi di quotidien national Le Soleil président bu fédération yëkkati ay kaddu nee na kat ñu ngi liggéey di xool nag kan moo war a wutu kii di Aliou Cissé loolu sax bëgg-bëgg lañ rek la maanaam Maître Augustin Senghor sax moom mu ngi joué na continuité locale loolu moo gën a fës ci yéenekaay bi di Le Quotidien ab sénégalais mooy wutu Aliou Cissé loolu moo gën a fës ci yéenekaay bi di Les Échos président bi yemul foofu nee na kat jarul sax ñuy seeti fu sori ndaxte kat na fii ci biir Sénégal Maître Augustin Senghor ci jokko ne ñoom dinañ sargal na kii di Aliou Cissé ñi nga xam ne kat moo quotidien sportif record nee na moom doomu Sénégal la ñuy jël mu war a wutu kii di Aliou Cissé ci loolu la des ba tey yéeni kab di la tribune di fësal ne ki war a wut Aliou Cissé dinañ ko xam nag bu double confrontation bi suñu diggante Malawi daal di jeexee président bi nag kàddu yi ma koy ko ci démb ginnaaw nag bañ doon neexal u yi nga xam ne que ñoo jëloon tournoi UFOA U20 joueurs yi ak encadrement bi ku nekk am nga benn million ak genn wàll. tournoi UFOA U17 bi war am ci Sénégal ñaar fukki fan ci weeru octobre ba ñaari fan ci weeru novembre atum 2024 sur le quotidien national Le Soleil di fësal ne organisateurs yi fësal nañ jëm nag wàllu calendrier bi ci jo boobu noonu Sénégal nag mi jëloon coupe bi atum 2023 dina door digganteem ak Libéria ñaar fukki fan ci weeru octobre bi ñu nekk ci stade Lat Dior bu Thiès. ñaari équipe yi dem La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce jeudi. Sud Quotidien s'arrête sur l'enseignement, apprentissage et port de voile dans les établissements privés. L'État cherche bonne formule, c'est le titre qui barre la ligne du En plus du déficit d'enseignants, de salles de classe et d'autres abris provisoires, sans occulter les grèves cycliques auxquelles les différents régimes ont été confrontés chaque année, a d'ailleurs contraint le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassi, à sortir un communiqué rendant certains signes religieux acceptables. Une telle décision prendra le dessus sur le règlement intérieur de certains établissements. En tout cas, l'État est à la recherche d'une bonne formule pour une année scolaire apaisée. L'État formalise sa décision, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. qui précise qu'outre l'impératif de garantir un environnement propice aux apprentissages, le texte insiste sur le respect des croyances religieuses dans toutes les écoles. Dans le même journal, Abdoulaye Fane, président de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, déclare que si le gouvernement prend une décision, chacun doit la respecter. L'État dicte sa loi, c'est le titre qui barre la ligne L'Info. L'arrêté ministériel impose l'acceptation dans les classes et lors des activités pédagogiques. Selon mon confrère, les écoles sont soumises à un contrôle d'approbation de leur règlement intérieur par les inspections d'académie qui disposent de jours pour se prononcer sur la conformité du règlement intérieur soumis. Le contrôle d'approbation veille au respect des lois et règlements ainsi que les valeurs fondamentales de l'éducation en lien avec la sauvegarde de l'ordre républicain, la cohésion le respect de toutes les croyances religieuses. Législative de novembre 2024, Sud nous apprend que Maître Malik Sall quitte la paire, une décision qu'il déclare irrévocable et définitive malgré les sentiments de fraternité qu'il continue d'avoir pour l'ex-président Macky Sall. Les investitures sont à l'origine de son départ. La PR sous dans le foot. Hypothèque sur le titre foncier, c'est de maître Malik Sall et menace de boycott à cause des investitures. Macky à propos des élections législatives, selon Sourcea, suite aux rumeurs sur l'irrecevabilité la candidature de Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Samoussa Kadou, le chargé de la communication de la dite coalition a publié un communiqué. Terno Bokoum appelle la presse à plus de vigilance dans le traitement de l'information en ces périodes de manipulation et de déstabilisation d'adversaires politiques. Supposée invalidation de la candidature de Barthélémy Diaz, Sam Barthélémy Diaz face au syndrome Yewwi Askan c'est le titre qui barre la une du quotidien L'As en péril Anta Babacar Ngom Cheikh Tidiane Youm Déthié Fall entre autres renchérit le témoin la jurisprudence de l'invalidation par les sept sages des listes des titulaires de Yewwi Askan Wi et des suppléants de Benno Bokk Yakaar lors des législatives de novembre 2022 Ousmane Sonko dépose ses mémoires de défense contre son inéligibilité voulue par Takku Wallu Sénégal recours en annulation des candidatures de Sonko et Barthélémy Diaz, les états-majors en situation d'alerte. C'est le titre qui barre la une de l'I quotidien. Selon mon confrère, l'invalidation de la candidature du maire de Dakar annoncée, Samoussa Kardobot en touche. La coalition soupçonne des tentatives de déstabilisation d'adversaires politiques. Le mandataire de Sonko a déposé ses mémoires. En sport, en attendant la désignation du nouveau sélectionneur permanent pour les Lions du Sénégal, le tandem intérimaire composé de Papito et Teddy Pellerin conduira l'équipe nationale du Sénégal sous la supervision de Maya Silmar lors des prochains matchs du Sénégal. Une décision logique, selon le président de la Fédération sénégalaise pour la succession de Aliou Cissé pour le choix du futur sélectionneur, Maître Augustin Senghor et ses collaborateurs privilégient l'expertise locale. Maître Augustin Senghor joue la continuité locale, écrivent nos confrères du quotidien. Le quotidien, un Sénégalais, va remplacer Aliou C'est le titre qui barre du quotidien Les Échos. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, ce n'est pas l'appel d'aller loin alors qu'on a l'expertise qu'il faut. D'ailleurs, un hommage sera rendu à Aliou Cissé, ajoute mon confrère. Le président de la Fédération sénégalaise de football déclare dans le quotidien sportif Record que la priorité, c'est l'expertise locale. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien La Turbine révèlent que le successeur d'Aliou la double le président de la Fédération sénégalaise de football s'est prononcé hier en marge de la remise de primes au Lionceau, vainqueur du tournoi IFOA U20.